jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuy nañ leen am kontaante ak mbégte comme liñ leen koy defalee saa su ne saa su ne rek lépp loo xamante ni seen mbégte la day doon suñu bànneex ba waral tey ñu dalal mbër moo xamante ne du mbër sax ndax <laughs> mbër moom su bëreetul du nekkatul mbër ba pare lisaasa xam naa ne ba mu ko gëjee relevé léegi yàgg na muy koña kona kona nag mu nekk mbër moo xamante ne vraiment ñu bari ci réew mi xam nañ ko ci ñeme dëgg te di wax loo xamante ne vraiment ñu bari ci àdduna bi dañ koy apprécier tey waral ñu dalal ko ngir bëgg a waxtaan ak moom ci lu bari. xam naa ne du ñàkk ci biir waxtaan bi dina am ay ponk yoo xamante ni du ñàkk ñu ànd moom dina am ponk yoo xamante ni du ñàkk tamit duñ duñ ci ànd ak moom mais lépp rek ñu xam ne waxtaan la. ndax wolof daf ne wax dëgg ca teel ngir mujjeel ga rafet ginnaaw loolu dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéel waxtaan bi ma gën koo sànni xeer ancien lutteur asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum. ñuy suivre internet yi suivre ji wasaare làmb yëpp. di site internet bu am solo boo xamante ne nii ñëpp ñoo ci war a jàpp ñëpp ñoo ci war a abonné. ngir liggéey bi gën di jëm kanam ndax vraiment ñu ngi def lu am solo ci Sénégal particulièrement ci làmb. di nuyu APEX bi ma dëkk. di nuyu Pikine waa Pikine fu ma juddoo. xam nga di nuyu sa technicien yi di la nuyu yow. donc di fi wax rek yàlla bu ñu fi wax lu ñuy xeebee donc ñun Kona lañ tuddoon mais léegi dañu tuddee mbokkum réew mi parce que tey lépp loo xamante ni rek luy doxal société bi ci la ñuy nekk di wax mm. que sa plaise ou sa déplaise dañ koy wax mm. te dëgg rek lañ ci jublu mm. kon ñu ngi sant suñuy ñaari waajur bu baax a baax sant ñëpp ñu ñuy déglu di ñaan yàlla lépp loo ñu laaj rek ñu tontu la incha allah ci li mooy mbër nga woon sa mag moo nekkoon mbër muy capitaine PK ñëpp xamoon nañ ko ci làmb mm-hmm. le ponceur qui met KO mm-hmm. saa yu ko waxaan macha allah dañ daan gis ni mu mel ci réew mi mm-hmm. fi ko làmb teg ñu jékki-jékki gisatuñu sa grand frère yow nga dugg ci làmb ban moment nga dugg ci làmb ak ñaata combat nga bëre ak kañ nga mujjee bëre. waa déjà sa question bi c'est mal formulé tu m'as mbër nga woon te ba tey man mbër laa dégguma fenn fu ma sibilee kañ nga gëj a bëre. <laughs> moo waaye dégguma fenn fu ma sibilee. te je suis trop jeune aussi pour bàyyi làmb. Mm-hmm. xëy na peut-être euh, dama amul combat te bëri na si yoo xam ne sax xëy na contexte bi moo tax amuñu combat. Mm-hmm. peut-être man tamit mën naa jàpp ne contexte bi la rek. Mm-hmm. mais ñun Pikine lañ juddoo. suñu mag doon bëree. Mm-hmm. mu am inspiration dugg si làmb par rapport ak ci jaar ci moom. Mm-hmm. mu idolaate ko ba ñu dugg si làmb euh, ñu ngi dugg si làmb la 15 le 8 avril 2012. 2012 jour combat la de Guiers Eumeu Sène man maa bëre spécial bi. bu njëkk ba. bu njëkk ba mooy bi Eumeu Sène di jël jël tànk bi. Euh, Sadd. boobu sama premier combat Demba Diop la woon. Demba Diop bi di jël tànk bi di koy dëj. Mm-hmm. man maa bëree spécial bi sama premier combat. boobu mooy deuxième combat bi. man maa bëre maa bëre spécial bi ñoom ñu doo a bëre maa mm-hmm. mujjee bëre ñoom ñu doog a bëre. Mm-hmm. donc moo nekkoon sama baptême de feu. mu nekkoon ko bam solo sama carrière ma daje woon bébé Modou Lo ma mm-hmm. daan ko. jóge fa am Lom da Malika daan ko. jóge fa am euh, Omar Camara daan ko. jóge fa am euh, Gaynde Ghetto daan ko. jóge fa am euh, Tafatine Junior. daan ko. Mm. jóge fa am Zal Bambey le 15 février 2015 du ma ko fàtte. mu daan ma muy sama première défaite. Mm-hmm. ma teg la cinq victoire sama sixième combat ma daanu. Mm-hmm. ñu jàng si loolu 2016 ma def année blanche. 2017 le 9 avril 2017 jour combat Ness Sa Thiès. Mm-hmm. ma bëreeg Sangomar bu Grand Yoff mbooloo daan ko. Mm-hmm. léegi nag boo gisee rupture bi am xëy na peut-être li may dénoncer ak position yi may jël ndax bi ma ko njëkkee jël su ma mag boobu ngay wax capitaine Pega dafa ne ma yàq nga sa carrière ma ne ko lu tax mu ne ma li nga wax yëpp dëgg la li nga wax ci CNG beeg li nga wax ci organisation làmb yëpp dëgg la. Mm-hmm. mais dañ lay xeex dootoo bëre ndax boroom néegu ñax du taal daay ma def. ma def ko non ma gëwuma ko ndax jàppoon naa ni nit ñi nekkuñu ay ingrat à ce point. Mm. nit ñi nekkuñu ñu bañ ñu leen wax dëgg à ce point nit ñi nekkuñu di téye loo xam ne askan wi ñoo ko moom ñu koy xeexee nit ndax waxul lu leen neex jàpp ma woon loolu mais nag c'est la triste réalité. li mu waxoon moom moo am ndax ba ma yëkkatee kàddu yooyu ba tey. Mm. laa gëj a am làmb jàmm si làmb. laa gëj sax ñu may wax waxu combat. mais yow jàpp nga ni xeex dafa am. xeex bi ñu lay xeex ci lan la yow parce que d'habitude mbër bu bëggee combat. Mhm. amul combat. Mhm. day démarché ci promoteur yi wala soit ménageur am wutal ko combat. Mhm. est que yow am nga ménageur ba tey yaa ngi wax sa ménageur na la démarché ay combat wala yaa ngi woo promoteur yi di leen solliciter pour ñu tëggal la combat. non man déjà bi ma déparé dañ maa tëkku yow dootoo bëri. kan moo la tëkku. ñoom système bi rek comme ni ñu yàgg def mbër yëpp xanaa moom mbër yi nii noppi du seen coobare de ñoo li may wax nii ñoo ma ko gën a mais xëy na dañ leen menacer wala ñu napp leen stigmatiser leen tiital leen ba yaakaar ne ñoom xam nga soo amee trop de passion ci làmb rek mën ngay sëgg lu bëri ngir bañ sa carrière yàqu. Mm-hmm. mais nag lépp loo gis rek dina am ñoo xam ne ay révolutionnaire la ñuy doon dinañ xam ne lii dinañ ko def sax dina leen impacté ci seen carrière. Mm-hmm. mais du tee dañ koy def parce que tamit il faut des des gens ñenn ñi di sacrifier wu pour les autres. boo xoolee ci taarix àdduna noonu la mës a demee. Serigne tubaab wax way wu rëy bi mu am yëpp il s'est sacrifié pour les générations à venir. mag ñu baax ñi amuñu woon benn dund bu neex lépp rek dañ ko sacrifié woon pour saxal dëgg donc jamono boobu am na ñu leen doon wax ni concentré wu leen seen bopp. ñi ngeen di xeexal jaruñu ko dëgg gi ngay wax mun nañ la ci rey mais dañu gëmoon yàlla gëm ni dëgg rek la ñuy défendre quel que soit alpha. Hmm. seen destin kenn mënu si dara et nul ne la mettre son destin. Hmm. man gis-gis boobu laa amoon moo tax li may def ragaluma ci dara tiituma ci dara dama persévérer wu concentré wu ci li nga xam ne mooy logique bi lépp lu ma gis muy injustice ma wax ko. mais quel que soit nag le prix. ñëw ci promoteur yi. Hmm. est-ce que Kona Kona Kona dem na ci ñoom sollicité leen ne man kat dama bëgg a bëre tëggal ma combat wala nga am ménageur. est-ce que am nga manager sa manager kan la est-ce que mus ngaa wax sa manager mu dem wutal la combat comme ni koy defee. xam nga ku bëree sept combats. am six victoires am benn défaite. Mm-hmm. kooku kay combat xam na nu ñu koy amee. Mm-hmm. mais nag musuma dem ci kenn di fa ñaan combat parce que man déjà damay xeex loolu. Mm-hmm. marchandise. da koy téye ba nit soxla ko ñëw jënd si ko. Mhm. mais marchandise su demee fekk ji kiy jënd rek valeur am wàññeeku. mais marchandise boobu ñëpp ci lañ jaar. mën nañu waxtaan ñi ñu am mais damay damay ñëw. Mhm. parce que Balla Gaye dafa dem ci ay nit ñaan leen ñu koy tëggal komba ba tey day toog këram ñu koy woo di ko ah, démarrer. moom xam nga nee naa la bëri naa sept combat. Mhm. kon ça veut dire que ñun def nañu loolu. lañ daan def di am combat biñ commencé wax ñu ngi koy def mais amuñu combat. <laughs> ah loolu laa bëggoon moo leer loolu laa dañ daan def di am komba euh. ñu ngi koy def dañ ko continuer di def mais amuñu ko amatuñ komba hmm. déjà sax da dem ci nit sax mu xamal la ni yow li nga wax soo ko arrêté wul doo dootuma la tëgg man am na promoteur bu ma ne ma damay liggéey ak. gouvernement bi du ma lim turam jaru ko hmm, hmm, mais wallaahi yàggul. ñu ngi doon dox sama combat ak Tafa Gueye numéro 2. ba des lu dul finalisé. Mhm. promoteur boobu lan la wax parce que am na ku muy liggéeyal koo xam dafa ma bëgg. Mhm. dèjà lim dafa ma bëgg daal démarche yu may am ak loolu daf ko neex. Mhm. mais nag bokkul à 100 pour cent ci milieu dafa xaw a nekk un peu intellectuel. Euh, euh, mu doxoon loolu mais promoteur bi dafa ne ko kii discours yi muy def du ma ko jël ndax man damay liggéey ak Macky te discours am yi def yëpp c' est révolutionnaire te pourtant c' pas quelque chose boo xam dama ko wax lu dul dëgg. Hmm. c' est ay faits sociaux laay wax ak li nga xamante ne ay injustice la wala jaaduwul ma koy déplorer. mais li je ne je ne ma kenn fleur. Hmm. mais nag daluma ci kaw kenn. damay essayer rek être juste avec être avec ma conscience. Hmm. di wax dëgg quel que soit rek kum dëgg gi ci kum mënti jëm. mais yow li ngay wax ci làmb ngay wax lan moo lan moo ci yoonu état. ak lan la laalee état. ba yow duñ te Matar Ba làmb bu doxul si moom la ay responsabilité am la te Matar Ba c'est l'État Matar Ba c'est Macky Sall et man tamit nee naa la damay wax ci ay actualité hmm. parce que dañ dañ ñu utaloon benn carré ne mbër yi wala animateur mbër yi ci làmb rek la ñu war di wax. Hmm. te loolu du yoon ñun ay citoyen lañ dañu war a wax si les sur les faits sociétal hmm. lépp lu xew ci société bi am nañ ci suñu mot à dire. Mhm. am nañ ci suñu kàddu. mais nag bu ma ñëwee dindi loolu def xat faka kabla dindi chaîne yi. Mhm. briser échelon yi di wax ci li ma gëm. Mhm. lépp lu am si Sénégal suñ ma ci laajee ma wax ci sama position. mais ñu ne pourquoi loolu mais nag gis-gis yooyu la daal. mais nag ñun changé wu yàqaluñ dara ndax yàlla mu ngi ñuy suturaal. suñu doonee mbër. yàlla def ñuy suturaal suñu doonul mbër tamit yàlla daf ñuy suturaal ndax walaaw yax sama communal naas. Hmm. njariñ ak lor moom si loxo yàlla la nekk. gis nga jiili boo ñamee gëm yàlla. Hmm. kenn mënu la ébranler. Hmm. te dama ko ñam. Euh, ñu ñëw ci ci loolu am na solo mais Kona ah, man damay gis lu ci bari ci ci ci li ngeen di li ngeen di li ngeen di kaas dafa bari gis naa ci fan yee yéen a ngi doon kaas ne association de lutteurs yi di Sénégal ni ñuy doxalee baaxul. yéen ngi nekkoon ci combat boobu ñu jékki-jékki rek gisaat la nga génn ci beneen combat boo xamante ne dugg ngeen ci nga boole ñu ñëpp xas ne ay seytaane lañ ak yu mel noonu loolu loolu foo ko xam nga li ñuy wax si làmb mm-hmm. ay dénonciation la te jii li li ñuy wax si làmb mm-hmm. ku ko làmb daj ko ku ko xool gis ko mm-hmm. da koy bëgg da koy nangu nga bañ ko nangu man yàlla dimbali na ma du ma wax fenn ñu ne ko Coran dafay fenn xam na la ñuy dafa réew te loolu waxaloon nañ ko képp ku fetal jëkk di teg révolution wala di di leeral li nga xam ne dafa lëndëm képp ku mës a taxaw di dénoncer kàddu yooyu nañ la ko waxal nitu fitna la mhm. wala dafa réew mhm. su dee xale nga ñu ne dafa réew mhm. su dee mag nga ñu ne nitu fitna nga Abdoulaye Wade mi avant moo jot ci nguur gi dañ doon wax ni nitu fitna la waaye bi mu yoree nguur gi ku ne xam na ni du nitu fitna kon loolu mooy diabolisation sénégalais sooy wax lu ko arrangé wul dina la xupp su la xuppee jàllul mu xëpp la su la xëppee jàllul mu yàq sa der da lay déggoo ma de. bu loo da lay menacé bokk lay menacé. su menacé jàllul parce que man menacé nañ ma dootoo am combat dootoo bëree yow xam nga ñi nga xam ne ñu nag yow la. Hmm. jàllul ma continuer si li ma nekkoon depuis 2017 nag te dama jóge ci combat victoire la am bu rëy daan sanguma xam ma tey bu doon damaa ñëw di dénoncer am ay defet dañ naan booy bi deful dara si làmb da yàq làmbam moo yàqu mais dama juge ci victoire si combat ne Sa Thiès man maa bëree spécial bi. Hmm. sanguma loxo bi man aw ma caaxaan bambara laa damaa mën a bëre ku xam nit sax nga xam ku intelligent dafay mën a bëre te bëre daanaka ay ay code la. Hmm. mathématique la. wallaay dëgg la barki Mouhamadou Rasulaay damaa mën a bëre. loolu dëgg la mais ba pare damaa jóge ci victoire toog ci combat ñu may invité ci télé yu bëri may wax. mënoon naa toog ne man sama bopp laay lijjanti comme ñëpp mënoon naa toog ne man du ma wax si lii sama yoon nekk si naay lijjanti mais loolu c'est lâche moom la mbëri magi di def te c'est très lâche nga nekk ci benn secteur gis ay nit di ci loru. nga gis ñi ciy jariñu mu doon minorité mais yow comme bokkoo ci majorité bi ci loru rek yow tu t'en fiches loolu c'est tellement lâche même société bi li fiy xew sax yow comme yow laalu la rek yow tu t'en fiches. Hmm. te pourtant lépp loo am société bi moo la ko jox lépp loo am doomu aadama yi nga xam ni les oppresseurs ñu ngi leen noot. jël seen alal di ko lekk yow nga nekk nga war a nekk la voix de sans voix nga hmm. war a nekk un porteur de voix parce que askan boobu ñoo la jàppale ba nga egg tey mais yow da ngaa mujj bàyyi fa askan wi dem ànd ak ñi nga xam ne ñooy lor askan wi ba pare nag nekk muuma ci lépp loo xam ne dafay lor askan wi. Mhm. man du ma def man du ma doxalee noonu moo tax ma xaalu suma yoon bi di ci xuus ba tey nag maa ngi ciy dégg lu ne mais yàlla mu ngi may suturaal. Mhm. Mhm. kan nga jàpp ni ci làmb moom moo war a wax ak ñan ñoo war a wax ba pare nangu ñoo wax. waa xam nga li ñu war a wax bari nañ nee naa la les porteurs de voix. Euh, ñi nga xamante ni dañoo am tur xam nga sénégalais dafa complexé ku am tur. Mm-hmm. sénégalais dafa complexé ku am xaalis. Mm-hmm. sénégalais dafa complexé ku sant ñas mbàkke si et cetera. Mm-hmm. donc ñooñu suñu waxul nag lu yàq ñoo ñoo ko yàq yu yàq si réew mi ñoo ko yàq. gis naa xale boo xamante ni day wax ku mel ni Siteu saa su ne day génn di joxe ay message yoo xam ne. kooku ñoo bokk écurie kooku ñoo bokk écurie kooku bu deful loolu ni ñu ñi yaa ko defe yaa nga. parce que xoolal ñu ko topp ñëpp ay néew di doole lañ. xoolal ñu ko topp ñëpp ba ay banlieusards lañ booy yi ko tokk jeunesse bu bu bu bëri ñoo topp ci ginnaaw kooku su taxawul defendre cause jeunesse bi rek du gor te ni mu ko defee. noonu la waree yeneen mbër yëpp mais dañoo lokk Sénégal kon nag Siteu dafa am mérite. waaw ah, parce que dafa taxaw di dénoncer loo xam ne leer na ko ni sax kilifa yi dinañ ko ci mere mais daf koy wax parce que mbooloo mi topp si ginnaawam amul seen fay moom moo war a nekk seen kàddu. te hmm. gor la. kon kon Siteu mi yor licence mbër bu waxee mel ni na mbër yëpp waxal na ci kàddu mbër yëpp wala waxalul ci kàddu mbër yëpp. ji li nga def ay. ah mais dëgg la. Siteu mbër la am na licence wax wax na ci kàddu waxal na mbër yëpp ba tey su ma fi toogee wax ci kàddu reporter yi waxal naa reporter yëpp. wala du dafa am loo xamante ni nit du jaaxaan di saw. Mm-hmm. Siteu li mu wax moom la concerné te daan yi buy ñëw lor yi buy ñëw lépp si moom lay dal parce que moom moo yëkkati kàddu wax. kenn du wax ci kàddu keneen te kooku délégué la wala kàddoom Siteu nekkul président de lutteurs nekkul secrétaire bokkul sax ci association ba déjà. Hmm. mais dafa taxaw wax àqulaay taalaam pour ñëpp jariñu hmm. ni mu ko mënee nag am nañu ko ëpp kàddu te defuñu ko léegi nag maa ko def te kenn du ko wax kenn amul maqaamam nag. déedéet Sénégal nag loolu la ñuy bëgg a tere quoi yàlla sax amu ko bu rayee ñu ne ul onge bi laa bu heure bu rayee ñu ne ah lii de yàllaa ko sañ. Hmm. moo ko def. heure bu reyee ñu ne inna lillahi wa inna lay raji'un yàlla mi moom lépp sax amul amul ñu def te kenn waxut léegi yow nga nekk doomu aadama di def te nga ni kenn du ko wax wala ku ko wax ngeen da nga koy yàq wala da koy boycotté wala da nga koy jéem a napp wala wala ngeen dafa réew mais garaawul amul problème tey ponk bi njëkk ci làmb mm-hmm. li nga xamante ne fii dindiwuñu ko làmb du avancé lan la discrimination crise de valeur conflit d'intérêt li sooy laaj da ngay laaj ku xam. booy deflu da ngay def loo ku mën. ku war ñay xeeb na gëléem gëleem li ñun dara feetu suñu bët. làmb dafa am bodd compte. bodd compte muy crise de valeur. mooy benn làmb dafa am. stigmatiser nit comme man nuñ ma def mooy yàq sa der xeeb la. làmb dafa am conflit d'intérêt. conflit d'intérêt mooy lan man ménager la maa yor mbër bu dëkk Géejawaay maa yor mbër bu dëkk pikin maa yor mbër bu dëkk Parcelles loolu mënul jëmale làmb kanam. ci benn ménager ci benn ménager. Mhm. maa yor Kona waaye waa maa yor jiili tey jiili ak Kona ay adversaire lañ. Mhm. loolu doxalul làmb bu ñuy ñu jël kenn ki dénkaane mbër moo ciy perte. Mhm. ba ba ba combat amee rek nga dénkaane nga war a xam ne la nga def jubut. bi ci topp. bi ci topp mooy euh, euh, conflit d'intérêt bi ci topp mooy nga nekk manager. Hmm. en même temps nga nekk agent ou promoteur. loolu mënul nekk. am na ci lamb on partie. Hmm. wala nga nekk manager bokk CNG. am na ci lamb ji nga nekk promoteur bokk CNG loolu hmm. conflit d'intérêt la. mbër moo ciy perte. boo gisee manager yi duñu défendre seen mbër boo gisee manager yi duñu la plupart duñu duñu wax seen akulaay taalaa. parce que dañuy bëgg a lekk fépp tey jii yow boo nekkee maintenant promoteur ma nekk sa agent. di la mm. doxal combat. Mm. ba pare di di di démarcher komba kii. Mm-hmm. mais loolu mënul nekk tu ne peux pas défendre deux intérêts à la fois. Mm-hmm. intérêt mbër bi ak promoteur bi bokkul. kenn ku ci nekk dafa am looy wut si sa morom. Mm-hmm. waaye léegi benn nit di nekk seen diggante di doxal kii di doxal kii. dina am benn ten intérêt buy des ginnaaw muy intérêt mbër mi. Hmm. ba da ngay gis mbër mu bëri diis combat du am lu mu moomal boppam. dëgg la. ñoom nga gis leen ñu dugg ci làmb ñoom ménager yi benn un an deux ans trois an ñu tabax R plus 2 mën naa la cee limal ñu bëri tabax nañ seen i kër te yor nañ plus de cent mbër kenn mënu ci am néeg boo fa naan <laughs> ñu ne kenn du ko wax <laughs> ku ko wax ñu ne da booy bi daa bari wax def xamala la stigmatisé la dafa bari wax kii wax da dem bëre ji nan laay bëree da joxuñu ma te sax bu ma bëriwul man am naa droit wax parce que man je suis un citoyen sénégalais. Mhm. j'ai mon mot ci lépp luy xew ci même bu ma nekkul woon mbër am naa droit wax ci làmb voilà léegi lan moo tax ñuy nit ñi jàpp sénégalais ay dof nit bu waxee lu la wul nga ni non naa yàq deram taxaw naa non kii du dara dafa war a bëri ji moroomam yaa ngi si la bëgg a nekkee roi des di la diaboliser te da ngay gis du mbër la ñuy wax wala dafa waroon noppi ki deful si làmb dara demal CNG ña fa nekk di doxal làmb yëpp mosuñoo takk ngeem. <laughs> dëgg la de wax ko ci kaw. yaa ngi nii mosoo takkatilee mais la wax ci làmb kenn du ko di. saa nañ bàyyi li ñuy def mën a waaxu. Hmm. xam réew mi ko gën. balaa ñuy nekk yàq teru nit ñi nañu teg mbir yi ci yoon ñëpp gis seen bopp moo gën kenn mënuñoo tee wax li doxul ci làmb. Hmm. kenn mënuñoo te wax tamit lu doxul si Sénégal. Kona ñëw nga ci promoteurs yi. Hmm. ñëw nga ci euh, ménagères yi. ma dolli la dara ci ménager yi. Mm-hmm. un ménager qui ne sa pas lire ni écrire un ménager qui ne peut pas discuter un contrat. loolu moom du jeex. bokk na ci li yàq làmb moo tax ngay gis mbër yi dañuy siñe ba pare du ñu xam sax lan lañ leen signéloo parce que kii signé na di pour cent bi ñëw rek mooy ménager bi ménager mobile looloo ko dal dañ ko aj nii signé na mais xamul lu mu signé ba pare mënul défendre boppam ñu aj ko tooñ ko aj ko moo tax biñ koy wax en 2017 je pense que 2019 dañoo mujj sax bind mémorandum ñun dañuy liggéey si làmb xëy na nag ku ñu xamul mooy yàq suñu der Matar ba recevoir nañu plus de quatre-vingt-dix mille fois pour ñu toog wax lu jëmale làmb kanam. mu binduloo ñu mémorandum ñu bind mémorandum de dix points jox ko lépp lu bon ci làmb. conflit d'intérêt bii laxoon nañ ko ci wax ci tamit ci manager yi nga xam ni ñu ngi manager ay mbër yu bëri bokk na ci yàq yaam waaye ñu ngi ànd ak promoteur yi di liggéey bokk na waaye tamit manager bu mënul liir mënul bind kooku dañ ko war a seetaat jox ko Matar ba ak points yu bëri ah. Mm-hmm. ak promoteur yi nga xam ne ñu ngi organiser làmb état daf leen war a appuyer. Mm-hmm. xanaa moo les promoteurs mon frère état daf leen war a appuyer force mais CNG bi yor làmb ji amuñu yoon promoteur yi aussi xëy na peut-être intelligence ba ca war ak taxawaay ba ca war matul. Mm-hmm. Gaston du moom kese la état war a jàppale. dëgg la nekkul tamit da ngaa war a toog si télé yi mel ni bool bu daanu di gërëm Macky Sall mu doog laa jàppale seen droit la les plus absolu ñu jàppale leen sans pour autant ñu doyati. mais làmb dañuy transhumé rek nguur gu ñëw ñu transhumé si <laughs> te duñu am luñ bëgg nañ ñu xam ni euh, la révolution pour qu'il y ait innovation. Ah, jaaxal nga ma. Euh, ah, fi mu toll dafa waaru dafa waaru fi mu toll nii. man maa waroon euh. di bàyyi ko parce que li ngay wax dafa am solo ci réew bi xam nga nee naa la ji li mhm. ku ma xamul rek moo may jugé. dëgg la. mais ku ma xam du ma juger et n'a pas Dieu aussi pour juger les gens. mais des nit toog rek juger nit wax ci moom lu ñaaw ba ma fi toogee ba tey lan laa fi wax luy sama intérêt bopp. dara je parle sur l'intérêt général. waxuma fi dara loo xamante ne sama yëfu bopp sax xamoon na lan la xamoon nan laay def ba dund fi mu. dëgg la mais a ngi gis ko am day toog ci télé bu jug ci boppam la ne. ji li ma la wax rek mooy. li may wax nii même soo ko bëggoon dindi. Hmm. munoo dindi. parce que li mu la wax yaa ngi koy gis c'est visible à l'œil nuy mhm. te sama akulaay taalaa rek moo tax ma di ko wax. Mhm. kon euh, je pense que nañu waxtaan rek la raison est la chose la mieux partagée au monde. Mhm. bu demee ba xalaat TV def ci man video te li mu wax moo am kenn mënu koo dindi. ne làmb bu milee làmb boo ci nekkee boo commencé jël position commencé comprendre sax dañ lay zappé dootoo bokk te pourtant loolu man bëggoon naa ko weddi sax ndax bëggoon naa ñun ñu bañ ñoo waxal lu ñaaw ñun waa làmb mais mënu ko dindi c'est la triste réalité. ndax bi ma commencé jël ay position la ma la ma làmb zappé ba pare wax ma ko ma dégg ko kon nag jii jili ñeneen ñëpp noonu lañ leen def mais li may wax nii ñu toog ci télé bi yëpp di ko seetaan même boo di bokkul ci làmb sax Sénégal en général noonu lay doxee lépp lobby la. Mm. mais nag il faut mu am ñu koy xeex nag pour mu deñ ndax injustice moom du prospérer mukk la peur doit changer de camp ñi jubul ak ñi dul def lu dul yoon ak ñi noot askan mi ñoo ñoo war a tiit mais nit yu baax yi les honnêtes citoyens dañoo war a circuler yow jàpp nga ne li ngay xeex nii di nga ci am ndam li nga bëgg yëpp ci làmb dina mën a nekk di nga dem ba fi nga bëggoon position yi nga bëgg làmb taxawaay bi mu war a am ci réew mi yëpp làmb am loolu. xam nga avant man may jug di wax. Hmm. yow mu yow fii yow boo sentiree am na luy xeeñ ci làmb. Hmm. mais bu njëkk CNG mit la woon kenn ñemewul woon wax CNG lu bët bi suufa ngi ci dañ xoolal demal ci demal rek ay 2015 jàpp 2016 ba 2012. Mhm. CNG muy mbër mu mag mu mel woon boo dee Alioune Sarr suma papa la nangam na wooy wàññi dagg yi yërëm tëlu mhm. mais man bu ma commencé di def une révolution boobu di wax léegi gis nga ni mbëri ñu ngi commencé wax seen xalaat. Mhm. demal xool léegi mbëri da nga leen invité sax ñuy wax ci leneen lu dul làmb te bu njëkk mbëri intérêt crypto personnel seen bopp rek waaw man bi ma gërëmee maire bi may may cere maa ngi gërëm ki may jëndal kaar wax waxu dof wax ay ñetti français mbër nit ñi reetaan. nga dem yow na nga réussir rek mais li askan bi sa waa koñ sax bu ñu amee lu leen naqari mënoo leen ko waxal mais léegi loolu mu ngi deñ te lool nag il faut mu am ñu commencé am na loo gis dafay am ñu ko tàmbali mais nag la plupart ñooñu ay victimes la ñuy doon mais man li may wax waxuma ko ngir jaruñu ci waxuma ko ngir am ci ndam dama koy wax ngir wax dëgg pour éveiller des consciences xëy na un demi franc mën naa am li may xeex nii mën naa dee ba ci samay set ñu ñëw ñu eggali ko ñu am lu leen bëgg mais il faut ñenn ñi ñu xeex pour ñeneen ñi ñëw il faut les aider maanaam suñu papa yi dañoo xeex samp kër ngir ñun bu ñu ñëwee stable. mais ñun tamit il faut ñu xeex dans la société samp une société boo xamante ni ñëpp dinañ ci gis seen bopp. te Sénégal ku ne xam na ni société boo xamante la ñëpp gisuñ ci seen bopp ji li société boo xamante la dafay favoritisme la société boo xam ne dafay néewal doole ñu am doole ñu am néew doole di gën a ñi nga xam ne ñoo am doole société boo xam ne dañ am lu lay xoolee leneen lu valeur. te nit waroo ko juger ci leneen lu dul valeur mooy lan balaa ñoo xool juddu yi nañu xool jikko yi. jikko rek moo jar a taataan mais Sénégal léegi valeur yi dañ ko sànni fële di xool ay alal wala jëf ju ñaaw il faut la promotion de la médiocrité mais nag loolu il faut ñu dénoncer ko sénégalais bëgg na dëgg dafa gisul ku ko ko wax sénégalais bëgg na dugg dund dëgg mais dafa ko gisul ku ko tegul ci yoonu dëgg bi. sénégalais yi bëgg nañ dëgg de ak ñoo bañ injustice. Mm-hmm. mais xamuñu gisuñu système bu leen ci teg gisuñu gouvernement bu leen ci teg gisuñu yoon bu leen ci teg léegi nag il faut marcher vers loolu il faut ñun ñëpp ñu xàll une yoon xàll benn chemin bu bees ñun ñëpp ñu jaar ci ndax loolu moo ñuy muccal tey dëgg suba dëgg gannaaw suba dëgg ndax jàmm du am fu dëgg amul. yow li nga nekk nii. Mm-hmm. am na ci ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi sa ginnaaw. Mm-hmm. ànd ak yow porté li nga porté pour làmb jëm ci kanam rawatina société bi sax Sénégal. doxalin yi nga xamante ne mu ngi fi mu change non vraiment li may wax nii ñi ñi ci ànd ak man ñoo ëpp ñi ma ci contre. te ñi ma ci dañuy ñëw fësal nii. billaahi non bàyyi bañ def émission rek nga seetaan nga après nga dégg nga xool émission bi impact bu muy am bokkul. Hmm. bokkul parce que sénégalais yi dama la wax léegi bëgg nañ lu baax bëgg nañ dëgg dañu gisul ku leen ci teg dañu gisul ku taxaw pour di taxawal xeexal leen parce que sénégalais yi dafa xaw a ragal tàmbali daf leen comme ni jékki-jékki rek xàll benn yoon créé daf leen të mais suñ gisee ku def defaat dara fekk ko ci rek ñu topp la mentalité sénégalais la. Mm. mais booy doog tàmbali yi maytul gaañ Sénégal gaañ ma boo kii yooyu di ko dégg nag mais da ngay gumba tëx lu gëm mag ñu baax ñi nga xam dañoo sacrifier seen life. Mm-hmm. Ahmadou bi muy taxaw di jokkar bi kala commandant naan ko waxoo dëgg. Mm-hmm. mais dañ doon wax Ahmadou mii day xaru. Mm-hmm. <laughs> dëgg la <laughs> Mm-hmm. xaarawul mm-hmm. il faut am ñu tàmbali. il faut am ñu tàmbali il faut am ñu sacrifié wu pour le Serigne Touba Moustapha naan ci climatiseur Serigne Touba néegu bant la amoon. Mm-hmm. Serigne Touba musta lekk ginaar gu ñu njoñ. Serigne Touba musta tëgg musta naan ndox ndox ndox ndoxu frigidaire. mais tey demal demal Touba ngis liggéeyam bu tedd boo nee man sëñ Touba sa seexu seexu Serigne Touba sax bu la seexalee. nga dund àjjana. gars dañoo toog muy dox. mais làmb est-ce que fi mu toll nii jàpp nga ni làmb fi mu tolloon 2010 2011 2012 làmb mën naa tolloot foofu ba xale yu ndaw yi sax di am cachet boo xamante ni vraiment dina romb sax 100000 francs. waaw bu ñu assainir milieu bi ndaw yi ñu assainir milieu bi parce que milieu làmb dañ ko war a assainir. ñu ko assainir maanaam milieu làmb moo amul organisation ba pare ñi ko yor amuñu vision. kan moo war a yor làmb kon. ku am vision. comme kan nga jàpp ne foo mën a bokk rek ku am vision. ko am pas-pas tamit pour dëkkam. président CNG bi fi nekk amul vision. am na mm. vision de. Mm. ah ah yaay jugé rek yaa ngi ne da nga bëgg làmb neexaat ne melaat nu mu meloon. kon ah. kay ça veut am na lu ci jóg. te li gën a jafe mooy am am am moo gën a jafe cré même ut dara ba am ko. Mm. mais téye moo jafe. ut dara ba am ko jafewul peut-être. mais téye ko gérer ko. gérer ko loolu dafa jafe ci ñëpp. làmb woon na Sénégal nii gérer wu ko ndax ay intérêt personnel. làmb bi muy dox au lieu CNG xool lu ko xool projet naan fii ak 5 comme bi muy dox ay 2012 2009 2006 2007 bu amoon ay nit yu am vision dañ naan dañuy commencé tëgg ay programme naan nan la ñuy def ba téye dayo bi làmb am ba mu mën a dund benn cinquante ans maanaam succès bi ak dayo bi. Hmm. mais defuñu loolu dañuy profité ci moment yooyu di duufal seen i seen kees. mooy ñoom nañu dagg mbër yi rek parce que 80 millions daa bëri benn jour ñu fay la 80 millions ñun nañ xool luñ ci am parce que ay anciens retraités lañ. Mm-hmm. ay amatuñ dara état bi gouvernement bi ñoo ñu indi fii pour ñuy mos dara amuñu fond de roulement imaginez CNG bénévolat amul bénévolat du dëgg sangum néew bi am na lu ci nekk ji lii xam nga CNG kenn ña fa nekk di xëy yëpp kenn amul salaire ba xam nga loolu. waaw ah, loolu de dégg naa ko waaye xel nangu ko tamit <laughs> dégg naa ko waaye xel di xëy ci bërëb ba weer dee. ku la ku la jàmbaloo Dakar. Mhm. moo la def loo nii. dëgg la. CNG <laughs> sàcc bi ñu nekkee gouvernement bi ñoo leen ko defloo si parce que nit ki mënoo koo loo te fayoo ko ba pare <laughs> ba pare naan ko na nga jub da nga gën a wóor quoi yow jubal wóoral vraiment yàlla baax na. Mhm. ça sonne mal à l'oreille kon dañu war a am budget annuel. Mhm. état jox leen ko muy seen budget de fonctionnement. CNG daf ko war a am mais xanaa xamoo mbër yi ñoom ñooy bailleurs yi ñoom ñooy financé waa CNG ak promoteurs yi xanaa xamoo loolu maanaam mbër ak promoteur dama leen yërëm. kon CNG bi bu kon bu mbëri génnee naan dañu nekk ci état boo xamante ni bëggul làmb yow da ngay da ngay da ngay ànd ak loolu ci mbër. ñun suñu yoon nekkul ci état mu bëgg làmb wala mu ñàkk bëgg làmb Macky Sall bu ko neexee. bu mu seetaan làmb loolu c'est son droit les plus absolus. Mm-hmm. mais il a l'obligation mu dugal loxoom ci lépp loo xam ne askan wi ñoo ngi ci. parce que du alalam lañ koy jox suñu budget jox ko suñu argent contribuable mettre ko dans des bonnes conditions pour mu ñoŋal institution yi ñoŋal doomu dëkk bi ba nga xamante ne kenn ku nekk ci la ngay yëngu di nga gis sa bopp. kon man bu ma yëgee ko ay état bi bëgguñu laam suñu yoon nekku si bu leen neexee pom waaye bu la neexee nga ne bëgguma ceebu jën loolu sa problème la mais ñàkk bëgg laam waroo tee ñu doxal laam. warul tey ñu dugal seen loxo ci làmb mu dox mais ñàkk doxal làmb boobu moo tax waa làmb ne ñuy bëgg ñu làmb waaw mais munoo ko doxal boobu sama yoon da cee nekkul seeni sentiment yu ñuy dégager dama lay wax li yoon sant maanaam président ay sentiment am ñun suñu yoon nekku ci loolu la ko wax Marème Faye Sall ñun dañoo fal un président de la république pour mu doxaluñu suñu suñu sunum réew mettre les hommes qu'il faut la place qu'il faut mettre les les les les fonds qu'il faut la place qu'il faut maanaam alalu réew mi ñu def ko fañ ko war a def doomu réew mi ñu jàppale leen ci lépp lu nga xam day doxal seen avenir ñun loolu l'argent contribuable bi ñu koy jox jox ko oto jox ko lépp jox ko vie de luxe jox ko njabootam dañ ko ko jox pour mu ñoŋalal ñu suñu yónnent bi pour mu jo defaral ñu suñu société pour mu defaral ñu développer ñu suñu réew kon su bëggul làmb ça n'a rien à voir dafa bëggul làmb moo tax ko déedéet loolu c'est injuste ñun waruñu seet ndax yi bëgg na wala bëggul déet dafa war a def par force parce que ñun dañ koo fal te dañoo bokk ñun ñu làmb dañoo bokk ci ñu ko fal. parce que yaa ngi may dégg. mais làmb ay transhumance lañu. Macky Sall sax bu deful si làmb dara mais làmb dañu am fulla boycotté ko. non mais defal na leen arène nationale boo xamante ne 32 milliards la budget bi. nañ la gaa may de ñu defal ko ah non. non man ngay waxal bul pour sori ah, ñun liñ ñu wax. non man ngay wax mooy 32 milliards la la ñu. boo gisee ma xas leen keroog ngeen di mer. yéen loolu seen liggéey la waroon bokk. ñan ñun ñan. mooy ñu yor micro yi rek di wax ci làmb. xasuma leen sax. dëgg la jubluwuma ci loolu. Mhm. c'est juste dama leen wax dëgg. Mhm. yow si on est des maa ngi lay féliciter. Mhm. ndax mënoon nga ni ko naa daf ma wax lu ma naxar yi xam nga nañ ko xeex. Mm. te bu baax da ngeen sonal seen boobu rek. da mm. ngeen may gisaat ci yeneen télé ma toog di wax lu ma neex. Mm. xam nga mais heureusement da nga am esprit bi nga xam ne esprit de grandeur la esprit leader la. ngeen woo ma ne ma ko naa li nga wax foo ko teg. maa lay félicité ci loolu di félicité waa wasaare yëpp. ngeen war di def ay investigation ci bépp information bu ñëwal làmb. Mhm. parce que yéen tamit kenn obligé wu leen yéen ibbi seen di wax ci làmb wala boog seen ligne éditoriale li ci ëpp làmb ngeen di wax. Mhm. kon bépp information bu ñëw ci làmb yéen yéen a ko war a vérifier ndax dëgg la wala du dëgg ndax baax na wala baaxul li ciy dëgg ngeen teg ko li ciy neen ngeen dindi ko éclairer les gens. mais rek mënoo leen yor seen i micro tamit toog lépp luy xew ci làmb tamit du ngeen ko investiguer nga ba pare ngeen ku wax ngeen bëgg ko ne dafa daf leen attaqué. attaqué wu ma leen. parce que ma nangu ngeen ne ma euh, Macky Sall xaw Ba dafa def 32 milliards mais loolu amul. man mii dul journaliste sax xam naa ni loolu amul citoyen sénégalais yi sax xam nañ loolu amul euh, coopération sénégalo-chinois la don la république populaire de Chine attends boo jëndee benn butéelu ndox boo ma ko jëndalee. ma xam ne butéelu ndox bi cent franc lay jar nga ni ma mille cinq cent laa laa ko jëndee lu ma ci mën man man mi ko jëndal lan laa ci mën. mais war ngaa mën a dem. uti ay beneen beneen version même butéel bi cent franc lay jar lan laa ci mën yow yaa ko jënd. mais loolu benn version la te benn lay pàkk la. Mhm. investigation laa la wax xam investigation. waaw gëstu seet seetlu càmbar. du information bu la ñëwal la nga jàllale ko jàpp ne loolu la ndax benn lay pàkk la mais keroog sax boo seetee inauguration ba président Chine bi wax na ko. daf ñu ko may doo la te don bi du daal mayuñ ñu ko sax dañ lay mayee loxo bii récupéré ko loxo bii suñu géej gi desatul jën dañoo jël suñu jën yi joxal ne saat mais ñàkk yër yërmande ci sénégalais ñu ne 32 milliards la defaat 32 milliards yi seen poche ñoom Matar Ba. ñu ne kenn ko wax gis nga kenn ku taxaw weddi président chinois bi bi mu nee don la boo demee ci bunt bi don lañ bind foofu. coopération sénégalaise chinois la république populaire de Chine offre une arène de 32 milliards à au république du Sénégal. jàng nag daa mel ni. maanaam baaxul parce que ku koy liir sax doo ñëwee liir loolu mais da ngay liir don la rek doomu 32 milliards la. <laughs> tey waa ji soo amee ñaari junni yoo maye mayal ku la neex. soo bëggee dégg dëgg woo ma ñu waxtaanee ko. sans état d'âme <laughs> parce que waxte yàlla tax. Uh-huh. moo jafe ci réew mi te man su fekkee ni nit tu es animé de bonne foi soo ma déggee ma wax nga xam ne kii yàlla rek moo tax muy wax. contre ma kenn bañu ma kenn. Hmm. wallaahi dégg rek laay wax. Hmm. waaye nag injustice bi képp kuy def luy lar askan bi dinaa ko wax. koo mën a doon nag man su ma defee loolu yoon ku ko waxul yaa xam mais man société bi lépp lu ñuy def lu ko lu laal société boo ko defee sa biir néeg wala sa vie personnelle sama yoon nekku ci. Mhm. mais lu xas ba egsi si penc mi am naa ci kàddu te dinaa ci wax. làmb gis nañ keroog ñaari promoteur mhm. wax nañ fi ku mel ne suñu papa Gaston suñu papa Ligue Nicolas. Mhm. kii ne non li ma tëgg ci làmb dafa bari. kii ne non PPV bokk na ci li yàq làmb. kii ne PPV baax na ci làmb bi nga déggee ñuy échanger kàddu yooyu yow mi nga xamante ne saa su ne rek défendre intérêt làmb moo la tax a jóg nan nga gisee PPV ak seen kàddu yooyu ngay dégg. Luc Nicolaï moom euh, dama koy félicité moom mais tamit na moytu di wàcce boppam. Hmm. parce que xuloog ñëpp boo xuloog ñëpp boo xuloog moom du bari njëriñ quoi. xuloog ñëpp gasoo euh, dama koy misaal gastoo ñànk tàng la soos bu ñëw rek day tegu ci kawam Gaston xuloo naa ak ñëpp Gaston ak Xaadim Njaay Mm-hmm. man ku ma gis ngay xulo ñuy wax nga leen ton tontu dama ay ree damay jàpp ñooñu amuñu position amuñu amuñu amuñu amuñu kii vision amuñu concept amuñu kii conviction ñooñu ça dépend fi seen intere nekk dafa am nit yu mel noonu. Mm-hmm. te Gaston ci loolu ci ñooñu la bokk si yaa ngi dégg. Mm-hmm. dafa am ñoo xam ne dañoo xuloog ñëpp ku xuloog ñëpp boo xuloog moom li ni ko laaj pour man bu mu seen ak gason barki yàlla réputation bi mu am ak taxawaay bu mu am bu mu daa gasanteeg Gaston parce que Gaston yàgg yàgg dina dof. <laughs> boo yëgu yor ay millions wax xalaatam li ñu ko laay wax moom mu wax xalaatam yàgg. xam xoole lii laay wax ci société bi. Hmm. man xooleewu ma nit ay millions man laay xool ci yow xam nga luy constance. Hmm. mooy li nga nekk tey muy dëgg. ku la gisaat dix ans wala cinq ans mu fekkaat la mu mel ni tey la la gisee woon sëñ Abdoulaat nee na. dëggu yomb na. waaye nga fexe say waxi ren. méngoog say jëfi daaw. nga fexe it sa àndandoo ren. ñu xool la ren ba deween ñu xool ndax say àndandoo ren kan la ci changé na wala changé wul. mais nag Sénégal boo amee xaalis lépp loo wax dëgg la boo siiwee wax naa ko sama introduction. man xoolee wu ma nit xam la laay xoole nit. jikko lii ni naa la yonent bi foofu rek la ñu rawee. Mm-hmm. wa innaka al axlaa xulli xil azim. rafet mais Sénégal dañuy xool juddu. balaa ngaa xam ni juddu bariwul njariñ ci li ma wax ci Gaston yi kaña bete bete la juddu bu rafet la ndey kaña baay kaña maam kaña mu judd di kaña di bete bete bu wóor fu mu génn jóori xeer jikko ko jaa tax da ngay teg sa dix dix mille yaakaar ko mu dindi benn zéro bi nga teg sa yére yaakaar ko ne damay xëy liggéey wala mu wan na 1000 francs yi wala wala mu wan na say 2000 wala mu wan na sa 500. Mhm. dem dem ak moom te doyewu ko dara. Mhm. moo tax fu mu génn xeer yi daal. te bu taa juddu bu rafet la am. ndeyam kaña la baayam kaña la. Mhm. golo ndey golo baay golo ndigg lañ koy takk ndax lu mu jekku yàq. ku mu dugg sa tool nga yéene ko dee. ku ko seen muy jaar sa tool sax nga yéene ko dee. kon potu saa it moo karaaf bi ñuy naanee njar ñoo bokk benn matière plastique. Mhm. benn but benn benn boutique bu leen rabit benn benn benn benn wàcc benn kii benn euh, jënd jënd bu bees. Mhm. maanaam tey mun nga wàccee sa boutique. potu sàmbur bu bees tàq karaaf bu bees tàq ñu bokk benn matière plastique benn usine bu leen defar. Mhm. waaye ku la xel njarum soow ci potu sàmbur bu bees doo ko naan. xalaatuma ko sax. la nga ko xamee tax. jikko jë. pourtant boo demee Mali dañ ciy naan fonde. Hmm. <laughs> yaa Ah. boo demee Mali dañ ci naan fonde parce que xamee wuñ ko loolu. donc yàlla na nu yàlla may jikko ju rafet kon man xooluma ci nit alal. Mm-hmm. damay xool sa jikko ak sa constance. Mm-hmm. te Gaston bu waxee lii tey bu subaa mu wax lee moom jinjeeru xew la moo raw ay tëddiw amul constance te ba pare il est man man man man man je je je maanaam moom chaque jour rek. le verbe présent premier première personne au au présent. je mhm. il faut il génère même bu dee am na mérite bu dee def na mais nan nangu ni làmb ji daf ko bokk ak ay nit. te même bu doon sax day wax lu jëmale làmb kanam yëpp mais même bu buy buy jariñu it ci boppam la ne maanaam bi moom rek mënoon na boot promoteur yëpp. Mhm. fexe promoteur yëpp nekk benn muy xëcc di jëmale ci ñoom parce que moom wàllam wéy na mais moom rek kon Gaston Luc Nicolaï bu waxee perpé moo ko fi indi te perpé fi aussi am na lu muy rey si làmb ndax Gaston dafa dafa xawa a kii dafa bëgguma nag attardé wu ci sa personne. Mm-hmm. sa personne ne m'intéresse pas. Mm-hmm. mais jëf yi muy jëf laay analyser. Mm-hmm. bokkut. sa personne sama papa la man na ma bàyyi. mais jëf yi laay analyser. te jafe naa ci ay jëfam nga ba laaj. laajoo ma ci dundam moom ci vie personnelle am. Gaston bu taxawee ne sénégalais yi dañoo bëgg lu yomb. il faut arrêter nañu jox cër askanu Sénégal bi leen def lu ñu doon nañu jox cër amateur làmb yi leen def lu ñu doon. mais bu toogee ne sénégalais yi dañoo bëgg lu yomb lu toll ni Balla Gaye Bombardier ah munoo cee jënd nga seetaan da nga bëgg la ray sa xaar xaw ma lan ak lan mais loolu yow munoo encaissé ñu ne ci kër yi. yi hmm. ñu ne dem stade ba. Hmm. encaissé ñi nga xamante ni ñëw toog seen kër yi nag. yow dem nga ba sax da ngay jaay sa combat ne dama ka leen. ngeen defal ma promotion si sama combat mais da di fay. dem nañ ba sax ay open de presse wala ay signature contrat ñu koy def pay-per-view mais loolu ça sonne mal à l'oreille yow sa promotion combat ngay def est-ce que yaa ngi may dégg. maanaam mm-hmm. yow yaa ngi def sa publicité. Mm-hmm. ba bëri na gars yi balaa ngeen di seetaan publicité bi da ngeen di fay. <laughs> ci publicité sax. <laughs> donc nag li may wax nii xanaa nga bañ ko nangu rek mais dégg la. Mm. léegi nag li tax ñu ñu néew doole milieu làmb kenn ku ne dafay xëcc jëmale sa bopp mais Gaston rek mu mënoon na bon promoteur yëpp état da leen di respecté mais nag ñoom dañuy transhumé ngir gu ñëw ñu ànd ak yow te loolu du tax ñu am li ñu bëgg il faut ñu am gëm-gëm état. boo xoolee ñi nga xam ne ñoo opposé wu ñoo lu la gën a sawar ñi nga xamante ne ñoo ñoom làmb ba pare parce que nit ku lu mu am ba pare dootu ko wut ki mu amagul lay jéem a convaincre pour am ko. xoolal li ma lay wax dañu dañuy dañu nekk si parti Macky Sall ba muy gul ba léegi di ko jàppale billaahi Macky Sall dem fee gis kenn nit di ko saaga barki dee moo ñaa mu jël def ay milliards xëcc ko ci wetam jox ko pos kon ñoom mii làmb dañu war a am gëm-gëm taxaw xeex ngir intérêt général mm-hmm. li ma la doon wax ne la ñàkk vision bi ñu am mooy làmb CNG mooy làmb bi mu nekkee ci effort boobu toll foofu si lañ waroon commencé tëgg ay programme yi nga xam ne dañuy maintenir làmb pour mu egg nekk fi mu nekk wala su dee wàcc it mu bañ wàcc ci à sa point ni mu wàccee nii. Mm-hmm. mais amuñu woon xalaat boobu jamono boobu ñu ngi créer ay règlement pour di lekk mbër yi ñu kenn ku nekk yaa ngi profité muy manager muy promoteur muy kii yaa ngi profité pour duufal sa gafaka. mais moment boobu fekkoon concentré wu nañ pour jéem a maintenir làmb ci niveau bu mu nekk. Mm-hmm. heure bi làmb du daanu. mais nag am na promoteur yoo xam ne amuñu amul si làmb aussi dañu dégg ba pare li ñàkk a assainir milieu bi. Mm-hmm. tey làmb bi mu nekkee ci dëgg di dox dañu waroon def jiili. tey jii yow jii bu la neexoon suba suba. soo demee CNG yóbbu visite contre visite. yóbbu sa ñaari photo yóbbu sa photocopie carte na ñu defaral la licence. ak 10 000. waaw ak 10 000 ñu defaral la licence. xooluñu ndax jii mbër la xooluñu ndax jii ndax certificat aptitude bii mu indi ndax sa valable. ndax c'est normal. ñun ñii ñëpp ñu ngi am certificat d'aptitude 2000 francs boo ko amee ma indi la certificat d'aptitude doo bouger fi nga waaw ah, loolu gis nañ ko ci benn mbër moo xamante ne mbër mu yàgg la ñëw ba làmb ja taxaw ñu xool ko ne ko ab taw pour bëre. di ko da ngaa. Ah. Ah. yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko. tooñ nañ ko. dañ hmm. ko delloo xaalisam ko te te delloo wuñ sax quinze mille la woon. léegi <laughs> léegi boobu nan lay développé. Hmm. yow ki nga xam ni yaa ko jox licence. Hmm. jox ko combat mu ñëw ba di bëree nga ne ko noonu ab taw. Mm-hmm. nit ku weddi boppam maanaam institution boo xam daa weddi boppam mooy loolu yow yaa seen bopp la ñu weddi. Mm-hmm. ñoom ñoo ko jox licence. Mm-hmm. jox ko combat mu ñëw war a bëre ñu ne ko noo ab taw mais ñoom ñoo weddi seen bopp. kon yow mii soo jugoon léegi di bëggee doon bër laaju ñu fan nga ndax bëri nga parce que tey dañu waroon def ay tournois décentralisés. xanaa xamoo Dakar làmb du Dakar kese. mais xoolal bu njëkk da nga daan def ay stade Ilimanel Fall Diourbel Louga fu ne ñoom Père Mansour Diop dañ daan bëri mais làmb bi ko CNG yore la gën a dee sax que léegi régions yi léegi ñoom ñëpp dañoo jógee ci régions yi ñëw Dakar mais mënoon nañ dundal lee xanaa xamoo CNG bi Dakar bi rek mooy dox presque yeneen CRG yëpp doxul dara léegi làmb yi buñ bëggee mu dox dañuy fexe bëri yi toog seen dëkk di fa bëri. Mhm. lamb même mu melul comme Dakar mais ñu jàppale leen ba ñu am benn tuuti lamb ba parce que dëkk yi bëgg nañ lamb. foo nekk rek di dund lamb 100 pour cent. ndokk yàlla na yàlla nga doon la mais lamb léegi boo ñëwul Dakar bëri woo. Bombardier ngi nii moo tax Dakar chaque fois day déplacé jóge Mbour ñëw Dakar jóge Mbour ñëw Dakar ñu ngi dem sax bay xalaat kañ la ñuy fekk. Mbour am na stade wala mu la sax. stade ne Mbour du jeex. léegi nag lamb jooju si business boo xam ne da nga koy yemale ci benn côté ba pare yow assainir au milieu bi promoteur bi nga xamante ne ma ñëw ci xam ne naa la mbër yi. Hmm. dañ leen war a maanaam tey ba làmb dee dox waru woon ku bëgg nekk mbër rek nekk mbër. Hmm. dañu war a organiser ay tournois décentralisé. Hmm. nga xamante ne bu ñu nee Jurbel ren ñaari mbër ñoo fay génn mën a am mën a am licence. ñu ne ñu ne Louga. ñaari mbër ñoo fa mën a génn ngir am licence CNG bi dina organiser ay tournois décentralisé tournois yooyu ñaari mbër yi qualifié wala ñetti mbër yi qualifié ñooñu la ñuy jox licence. dina tax doo am 10 000 licenciés dina tax demande bi du ëpp offre bi. parce que amoo 10 promoteurs yu assuré am 10 000 licenciés. mais 10 000 licenciés ku nekk joxe 10 000 loolu xaalis la. waaw léegi nag xaalis boobu nag lañ ciy xool léegi nag xaalis boobu nag dugg na mais làmb dee na mais bu fekkoon ne ñoom dañu bëgg a doxal secteur bi mais dañ koy assainir saa ji li ma la wax de amul. waaw xamal laa bëgg. Mm. chaque un mois ngay ñëw fii ñuy toog di yaatal parce que li duufandoo ci nag bi xajandoowul ci cin bi damaa bëgg chaque weer bu jot may am kona fii ñuy toog di waxtaan ci jafe-jafe la am. parce wax la ko wolof daf ne. wax bu dofee nopp yi koy dégg war a wér te ñun wax dëgg nekkuñu ci. ngir par parloo kenn ñun defendre intérêt làmb moo ñu tax a jóg. du promoteur du mbër du dara mais dañu bëgg làmb ci boppam mu changé ba ci supporters yi nga xamante ni su seen mbër daanee sax ñu damm saisi sànni ñu changé parce que ñi war a changé ci làmb dañoo war dañoo bari. merci beaucoup Djily. Mhm. daam yàlla may na la li naan perception. Mhm. muy déggin dégg. Mhm. dafa am dafa jafe nag. mais yàlla may na la ko yàlla yàlla lafal la cet. bërëb bi aussi yàlla na ko gàlla yëkkati loolu may naa la ko hmm. ndax nañuy wax pour li ñuy wax muy am ay résultat hmm. sensibilisation la ñuy def hmm. éveil des consciences li ñu wax nitu dëgg nga dégg nga ko xam nga ni lii dara dindiwu ko te waxuñu ko dara pour yàq dañ ko wax pour defar ma ñëw ne la làmb bu ñu bëggee mu dox loolu ci la bokk mooy am dix mille licenciés. te amoo cinq promoteurs yu assurés mais secteur boobu mënul dem parce que demande bi dafa ëpp fuuf offre bi. moo waral nga gis ñuy utiliser mbër yi di leen sanguloo ay xar di leen doyadi loo moo gis nga gis mbëri yi di voyage léegi sax bañ a ñëwati. Mm-hmm. parce que dañoo dugg ci làmb liñ ci doon seen amuñu ko ci seen temps ci yàqu muy metti mm-hmm. ñi ciy am rek ñoo ciy continuer di am léegi nag ma ñëw ci promoteurs yi xam nga nee naa la. bu ñu defoon noonu dinañ réduire mbër yi nga xam ne maanaam da gis koo xam ne du mbër daa regg rek nekk ko ñu ne ko demal bëre ji mu dem uti licence ñëw ji bëre amul qualité day tax sax combat dootul am qualité hmm. mais suñ defee ay tournoi les meilleurs de chaque région ñu daggal leen licence dafay nekk impact hmm. licence dafay nekk lu jafe mais jile handicapé warul ñëw ñu koy jox licence léegi milieu boobu nag du tem loolu moo rey làmb léegi mu jugee ci am milo bi ci côté mbër yi. Mm. ma ñëw ci côté promoteur yi. Mm. da gis koo xam ne Kona la tudd mu ngi doon jaay ay feeraay wala mu yor marché Sandaga place wala wala wala. Mm. mais bëgg na visibilité. mu dem ci bureau benn ministre wala dem ci bureau benn nitam ne ko abal ma may ma trois cent mille wala cinq cent mille dama bëgg a dugg ci làmb ji. mu may ko lu mu jëndee licence. bu ñëwee pro euh, CNG au lieu ñuy def ci moom euh, maanaam xool euh, état moral ak financier am. def euh, def investigation si moom. Mm-hmm. xam ndax kii ndax ay fonds may na ko mu dugg ci làmb parce que làmb bu la ci kenn nax ay fonds la. Mm-hmm. képp ku bëgg a nekk promoteuru làmb lu mu gàtt gàtt war nga am vingt millions ci sa compte yow moomal sa bopp. mais bu fekkee nit ki daa ñëw ku mu mën a ñëw rek nga dagal ko licence pour mu nekk promoteur moo waral nga doon gis ñuy jox mbëri ay billets. moo waral nga gis promoteur buy laaj mbër caution soo ko jox combat. Mm-hmm. parce que ba munu amuñu. amuñu xaalis da ngay soo xamante ne billaay day tëgg làmb mbëri ñooy fay seen bopp. dëgg la léegi li ko waral nag mooy CNG moo waroon def rôle boobu que comité national de gestion de la lutte mooy CNG gestion loo ci dégg. wàllu koom-koom. Mhm. te gérer bi nag du ay fonds kese nga war a gérer. Mhm. da war a gérer ay carrière mhm. mais ñoom fonds doo dong la ñuy gérer <laughs> te enrichissement illicite la. boo bëgg gis làmb enrichissement illicite ñëwul ci làmb. ñu ngi dagg alalu mbëri di ko lekk te mu jul fenn bu ñu waxee ñu ne Matar Ba la ñuy dem Matar Ba mooy seul citoyen bu am sañ-sañu lekk alalu nit te dara du ko ci fekk. lu tax loolu. ah dagg bi ñuy dagg mbëri ñoom nee nañ même mbëri bu ñu leen laajee sax xaalis bu muy dugg ñoom seen yoon nekku si mataar Ba la ñuy rendre compte yow war ngaa dagg xaalisu mbër dóor def ko ci bëre simple. déedéet. loolu la ñu ne dañ ciy organiser drapeau zéro l'État. loolu moom te drapeau moo koy financé chaque drapeau zéro l'État da leen a xaalis bu bari. benn CNG ñoo am sañ-sañu di dagg même policier bi lay bindal contravention ci tali bi. Hmm. su la daggee dina la ne sa xaalis fii la jëm. Hmm. mais mennum CNG laa gis ñuy dagg alalu mbër dagg alalu te duñ ko wax fan la koy dugal CNG yi te ba pare ba pare policier bi xaalisam bi ñu dagg defal ko këyit. Hmm. ci moom lay dellusiwaat. ndax trésor public la jëm. mais ñun suñu xaalis delluwaat surtout su ñëw ñaata mbër gi gis ñu fi feebar di dee kase cóob. chaque jour dama koy wax di ko waxaat. dëgg la Mamadou Kassé Diop bu Mbour. Mm-hmm. lan la deful ci làmb. lu lépp moo jaaroon ci usine doole noonu. daan ko jël bu rëy Sekke Ndour moo ko gaañ. carrière am la mm-hmm. yàqu mu paralysé instant yi paralysé na. Mm-hmm. te pourtant ñaari licence la am. simple ak dóor dem na sax ba bokkoon équipe nationale. dëgg la. làmb faju ko ruj bi ruj bi soo xasee ba am licence bi. Mm. soo feebaree sa carte ngay wane sa licence ruj bi ñu faj la. am nañ mutuelle ruj bi te wax la làmb ni ko Sénégalais yi amee impact. les acteurs de la lutte ñu gis seen bopp ci làmb bu ñu feebaree te dañ leen di dagg assurance dañ ñuy dagg assurance ci sunu lissance mhm. mais gis naa mbër mu ñu gaa Baye Ndiaye mu ngi Italie léegi. Mhm. Baye Ndiaye mbëru Lamsaar la woon ñoo bokkoon écurie. Mhm. léegi légionnaire française la bokk. Baye Ndiaye Sénégal day suul ndaanaan. loxom booy gëndar la doon bëreel loxom damb ci biir làmb ji. moo faj boppam. te dagg nañ ko assurance ci biir làmb ji la loxom dammee. Garga Mbossé waxi keneen ak keneen du ma lay limal fii laay fanaan kon booy wër ay arnaqueur ay sàcc yu mag. ñëwal ñuy gérer làmb parce que ci xoolal li ma lay wax nii rek maanaam ngay dagg alalu nit te delluwaatul si moom état sax ñemewu ko état suñu xaalis bi muy dagg ci lay defalee les travaux publics. Mm-hmm. mais ñun dañuy dagg suñu xaalis di ko lekk ba pare mu nekk seen budget de fonctionnement fi mu toll nii CNG bu ñu daggatul mbër bu ñu daggatul mbër CNG yàqu. am na solo maa lay jaajëfal bu baax bu ñu daggatul mbër. CNG bi yàqu. kenn du fa xëyati. dañuy dañuy duggaat ci beneen ponk. sangum néew bi am na lu ci nekk. sangum néew du Alioune Sarr ñaata at la ñu CNG 26 ans sangum néew. kon <laughs> kay sangum néew c'est pas gratuit 26 ans. ba pare nag avant mu fay jóge dañoo guerre mu doog a dem <laughs> te bi mu demee tamit benn nitam la lañu indi laatam rek nitam la ki fi ñëw nii ba tey Alioune Sarr ay gérer làmb ji. Hmm. moom Ba ah. ndeysaan am na solo. ñu ñun dàqu ñu woon Alioune Sarr sa personne. système lañ doon dàq te même système bi mooy dox ba tey. nekkul pour eh, Alioune Sarr doon xeex de. Hmm. système lañ doon xeex. système bi maanaam doxalin bi doon doxalee làmb. Alioune Sarr moo fi jógee mais doxalin bi ba tey mooy dox. am na solo dégg ngeen ko bu baax moom xale bi nga xamante ne mooy Kogna wax na ci lu am solo ci làmb mais tey da nga sol may équipe bu Sénégal. Hmm. démb Sénégal football am ndam lu rëy. 2 3 1. mu nekk loo xamante ne mbégte la ci réew bi waaye fii nga toog bari na ci ay sëriñ soo xamante ne. toog nañ ci waxtaan ci. Mm-hmm. ñii ne coupe bi mën naa ñëw ñii ne coupe bi mënul ñëw ñii ne daa am sax ñu nekk ci réew mi ñoo xamante ne vraiment dañuy xeex réew mi pour mu bañ a jël li nga xamante ne mooy coupe bi coupe d'Afrique indi ko ci réew mi. Mm-hmm. boo déggee loolu en tant que citoyen doomu réew mi ban gis-gis nga ci am. Euh, li may njëkkee mooy féliciter jeunes yi nga xam ni ñoom ñoo dem euh, entreneur bi am confiance ci ñoom. Mm-hmm. recruter pour ñu teewal raaya réew mi. Mhm. fa ñu taxaw tey ñu ngi fa taxawal toute nation. Mhm. fa ñu taxaw tey ñu ngi téye yaakaaru dëkkub lëmm. Mhm. te xam naa ni it yaakaar naa ni xam nañ impact bi ndax dégg naa discours jàllo bi démb bi victoire bi amee. dama xam ni ils ont dans le bain. vrai gaynde macha allah. donc kon loolu moo am importance. man nag gis-gis bi ma ci am ak gis-gis bi ci nit ñi am bokkul. man dama jàpp di la récompense est au bout de mooy euh, coono mooy indi résultat. dëgg la coono nag bu raxul dara sans moo tax mystique beeg yeneen yëpp man joxuma ko valeur li ma jox valeur mooy xam naa ni bu doon mystique kese mooy tax nit réussir wala nit am li mu bëgg Afrique. soo ñëwee ci rond yi xale yi. ay coupe coupe d' Afrique la ñuy fooy ak coupe du monde. Mm-hmm. kon c' est pas ça l' yi ciy wax nag c' est du bonne guerre business la jiil sénégalais nga il faut apprendre à vivre dans ce pays mooy bokk ci coow li xam li waral coow lee ko gën. Mm-hmm. mën a waaxu it xam réew mi ko gën. Mm-hmm. dafa am ñoo xam ne ay charlatan lañ dañuy profité ci ay moment ak ay situation pari foot la rek. équipe bi day gagné. at day toog. mais mun na tombe ndax bu toogul day gañe rek boo waxee benn l'un des deux mun na tombe kon moo gisee sëriñ yi foo sëriñ yeeg charlatan yi di ci wax. parce que dañuy profité ci moment yooyu parce que moment yooyu ci la Sénégalais di am attente ci ñoom di déglu képp ku wax ci équipe bi rek moment boobu dañu lay déglu. Mm-hmm. léegi nag ci moment yooyu la ñuy profité di promouvoir léegi nag dañuy def gañ ou père des fois ñu wax mu tombe seen kër ñu koy rang Selbé lu ko may ndam sa loolu moo gën a xanaa xamoon naar bii di pari foot Selbé Ndom moo ko dàq moo ko dàq see Selbé day pari foot day joué mu ngi mel ni nga dem rek si naar bi. Hmm. xanaa xamoo yow ñuy ne bu doon xam-xam dëgg ñaam ñuy ñuy jàpp tari pari foot ñoo ëpp xam-xam si Sénégal. mais match boo fekkeewul fi ñu ko préparé match boo fekkeewul classement bi nga di diw ay gañe. mu gañe ak diw mooy diw première mi-temps. <laughs> laay des fois nga ni 3 bii di la am 3 bii am. te Serigne si léegi li ma ci gën a jaaxal da ngay gis Serigne su génn na équipe nationale du dem quart finale am na koo xamante ne chaque jour ma nga TikTok mais lan lay wax waa koñ ba lan lan la leen wax bu demee jàkkaarloo waa koñ ba te boobu boo waxoon du dem quart de finale lan la leen wax. yàlla nañu yàlla yërëm. ñu ñun Sénégal dañoo bëgg ko ñu nax boo yisee fari foot man am naa ci boo yoo xam ne barki Serigne Bamba ñooñu dama est-ce que amuñu gàllaaj ñoo ñoo am xam-xam. Ah. masi bi wala ñu naan diw mooy dugal. dëgg la dem naar bi fay leen. Ah. mais xanaa kon ñooñu dañoo am xam-xam. Mm-hmm. parce que sëriñ yi ñuy déglu. Mm. loolu la ñuy def nii dañuy toog ne duñ sax wax diw ay dugal dañ naan Sénégal dina dem wala du dem mais Sénégal bu demul day dem maa bu ñaar moo ci am day dem baa mu ñu baa mu baa mu bañ a dem. Mm-hmm. léegi soo nee day dem yàlla dogal mu dem. Mm. ñu ne am nga xam-xam. waxoon <laughs> te man li ma jaaxal mooy Serigne si naan équipe nationale bi dina génn match de poule wala dina def lii bu équipe bi génnee ñoom ñoo koy njëkk a jël def ko seen page TikTok wala di ko staté pour sénégalais xam ni waxoon nga ko te boo waxee lu safaan wa doo nangoo génn. gis nga taxaw wane booy yi di ci pari foot bi. gis naa ñu ci gagné sax bay dawal oto suñ doon publier li ñuy def. Mhm. woote Serigne ñu wuy si leen bu dee wax mu tombé rek mooy tax a doon Serigne. kon nañ dem jëli booy yi pari foot. mais gars yi dañu yor ay laar yor ay sengoor ràngoo ko taxaw xuuxal gars yi. ay charlatan lañu xam nga charlatan. déedéet xam nga tey Sénégal di football nga xool ni Sénégal kat lu ci demi final la ñuy toogee. Mm-hmm. te Sénégal sax ñoo yey ne kooku wax du génn quart de finale. Mm-hmm. système de jeu bi moo ko nax waaw parce que premier match bi boobu yéegalu sax ngooñ wax dëgg kenn amul yaakaar départ gaynde arrivé mbuus waaye bi yoon départ mbuus lañ def yàlla lañ def arrivé gaynde donc yàlla yàlla ah. mais yéen yéen a may ñooñu doole gis nga ñooñu mm. il ne faut pas arrêter il faut arrêter aussi mm. de faire la promotion dañaam de la médiocrité mm-hmm. euh, même wala bu ngeen leen dee wane mm. ngeen def ko genre boole ko ci euh, diver diversion maanaam yooyu bu ngeen ko dee teg def leen ko saaru théâtre parce que c'est du théâtre. ñu jàppee leen ay comédie jàpp merci même boo ko dee teg teg ko ci façon comédie. ëpp naa def mais ñooñu boo leen dee invité. am na ci ñu am xam-xam. def ko lu sérieux da ngay yow si boppam sa ligne éditoriale boo moytuwul ngay yàq. am na ñu am xam-xam. déglu ma rek parce que invité nit muy natt asaka mbay mu ñoragul. fit mënu koo gën a rëy. Latt <laughs> Asaga mbay bu joragul kooku perte na bu yàgg <laughs> billaay perte na. <laughs> ji na leen def nag. voilà maa ngi sëñ ngay def waay non ma jaaxal mooy. da ngay laaj ci gaynde yi pareegu ma dama leen di ñaax. ci équipe nationale équipe nationale yi. Mm. dégg naa sax ñu naan bu ñu waxee gaynde ñaan pàcc àll la jëm Sénégal dañoo neex. Mm. donc li ma la woon a waxal rek mooy. Mm. nañ gëm résultat. dëgg sénégalais yi dañoo gëm résultat. gis nga ñi leen di taggee tey. bu ñu amee safaan noonu lañ leen di xasee. Mhm. ñoom tamit nañ am mental. ndax nekk sénégalais te amoo mental dafa metti de. dëgg la doo bokk ci réew mi sax. boo amul mental de fer. fi bokk. doo dox doo da ngay da ngay doo génn sax sa kër. parce que dañu mën a critiquer nit. Mhm. dañu mën a stigmatiser nit. Mhm. dañu mën a weer nit. duñ la may dara ci chance mën ngaa def dix jëf yu baax def benn bu bon ñu jugé ci boobu. jili yaa ngi nii ñi lay félicité yëpp ba nga delee liggéey ba tey yaa ngi rafetal. Mm-hmm. mais gis nga bu ñu gisoon sa benn vidéo wala benn nit wax ci yow lu ñaaw. Mm-hmm. nga gis ñu commencé la juger. te pourtant sa dund yëpp lu rafet la nga doon def te nit matul. Mm-hmm. l'homme est loin de la perfection nañu moytu di juger nit ci ay fait. ñun ñii ñëpp am na loo xam ne mu ngi nëbb bu feeñoon ñu jugé ñu. wallaay dëgg mais nit mënul dund si dundam yëpp di def lu rafet benn jour mu am erreur yow constaté woo dëgg la wala dëgg sax commencé nga koo ak ñoom ñëpp ni lañ mel commencé wax te yow résultat maanaam information boobu gëstu woo ko sax ba xam ne c'est fiable ou kon li ma leen di wax mooy nañu bañ a gëm mystique bi gaynde yi non jori waaw buñ gëm loolu. Mm-hmm. ñooñu dañ ay charlatan lañu. ñooñu est xam nañ mystique. dama lay wax rek même même fédération bi sax am na ci ñoo xam ne dañuy bëgg a gagner marché boobu. Mm-hmm. gagner ay sëriñ. dëgg la. <laughs> xam naa dañuy complot ak ay sëriñ. Mm-hmm. bëgg di gagner marché bi di lekk xaalisu askan bi sëriñ yi di naxe ñoom ñuy naxe. léegi ñoom nañ bañ a focaliser wu ci loolu ñu maytu tamit di jël ay sëriñ naan nangam déedéet bal bi boo ko tegee. Mm. football tànk loxo nopp bakkan baat mbër jour yëpp loolu lañu am. Mm-hmm. vérité du terrain moo am solo résultat bi waykat yi nañu way sëriñ yi nañ wax mais ñoom nañ am mantaal suñ duggee ci terrain bi nañ xam ne lii dëgg mooy li terrain bi di joxe. Mm. est que yaa ngi may dégg. bu baax buñ tegee penalty ay juróom-ñaari sëñ Fallou sëñ Fallou dëkkam bee ñu fay tere football. Mm-hmm. sëñ Saliou jëndee stade di ko def jumaa. Mm-hmm. ñaata balu jàmbur la fa lañ fa la war kii dëgg euh, safiyatul almaan nangu. Mhm. wala kooku soo déggee penalty naan juróom-ñaar sëñ Fallou saay sëñ Fallou folu fowlul. Mhm. kon impact yooyu la ñuy dindi suñu xel. laabe suñu cerveau génnee ci futilité yeeg banalité yi. Mhm. ñu jëm faire face au monde faire face aux résultats gagné coupe bi indi ko loolu amul leneen. jom fulla fayda jom fulla fayda déedéet affronter la vie affronter résultat bi indi ko parce que la récompense est au de l'effort kenn du. góob loo bayul nee naa la su doon mystique wala ay tànnale mooy tax Afrique am Sénégal Afrique avancé na gisal dama ne la ñun Afrique suñu science bi hmm. bu fekkoon ne jëmale nañ ko nee naa la la science doit pas être contre les hommes mais doit être pour les hommes mais pas contre les hommes. Hmm. boo déggee la science mooy njabar bi ñuy def. Hmm. mooy xam-xam. xam-xam warul nekk au détriment des peuples dafa war a nekk luy sauver peuple bi. mais ñun Sénégal suñu xam-xam maanaam sëriñ yi ñu tuddee seen bopp si ñaar ak ñiy lasraar yëpp lu bon lañ gën a mën. te hmm. la science doit pas être contre les hommes. il doit être au service des hommes mooy da nga war a am lu la jafe ci sa àdduna am luy problème nga dem nit di ñaanal la nga réussir wala mu ñaanal la nga nga egg fi nga bëgg a egg wala mu ñaanal la ci yàlla nga am ndam wala mu ñaanal la nga mucc ci cat mais ñun sunu sunu xam-xam yépp yàq maa yàq diw maa tee am ndam kii. Mm-hmm. équipe bi am na ko ñëwoon si man ne ma nangam. mais c' est du lâcheté. Mm-hmm. léegi nag ñun tamit on fait la promotion de ça parce que man su ma toogee Sénégal en au vingt et siècle ma gis télévision ñu teg plateau télévision dëkk Mame Bamba ak Limaamu Laay mm-hmm. dëkku Alaaji Malick nga xam ne Alaaji Malick lu mu liggéey ci diine loo ko bañ bañ bu timis jotee tàkkusaan bu jotee jàpp tisi naa si xaq bi la xaq bi dalay lay dal Serigne Touba waxatuñ ko dëkkam boobu tey ñu toog ay ay ndabarkat ay féticheur mm-hmm. di leen mettre en valeur biisu ngóone loolu duma ko ko baal ginaar googu ñu rey na xam ne yàlla dina ko laaj ci bàmmeelam Sénégal lu tax lu tax sénégalais amul yërmande imaginer booy loolu dañuy jàngal sax xale yi agressivité parce que gis nga télévision mm-hmm. lii kese la informer mm-hmm. éduquer distraire ñetti yooyu moo war a doon sa priorité information yar ak féexal xol féexal xol bi nag nga yóbbu ko ci ay éthique yóbbu ko ci ay idées yu rafet yóbbu ko ci patriotisme même ay théâtre yu ñuy def dafa war a xiir jeunesse bi ci bëgg lu baax xiir jeune même booy def théâtre da nga ci war a dugaale civisme dugalaa ci jikko bu rafet mais même suñu théâtre yi dañuy dañuy copier même suñu téléfilm yi dañuy copier te mbon lañuy ñuy copier booy dañuy copier mbon mais ñun novelas nañ ñoo koy bàyyil kon parce que novelas jigi tubaab ak tubaab buy fóonante mais loolu du cas du cas loolu du cas parce que ah ñi ay tubaab lañ mais li dangereux nit ku ñuul tudd maam Bous maam Jaara wala mu tudd Aysatu wala mu tudd Leena. nga tudd musaa ñuy def ay scènes yu obscènes mais loolu moom mooy def leen ko c'est possible. loolu mooy def leen ko c'est possible. di simbi lu garaaw ci télé bi lu garaaw. léegi nag man foofu laay waxee mënu ma nangu ñu jël ginaar muy doomu jàmbur. Mm-hmm. yàlla teral bi mu ñu teral. Mm-hmm. moo tax ñu am sañ-sañ ñoom di leen rey te duñu am bàkkaar. Mm-hmm. ñu jël ko xoj ko ba mu dee. loolu xoj la. pour wane ni man mën naa dara. loolu xoj waa léegi ñoom seen mën dara lu tax yóbbuwu leen dans le bon sens. mais nee naa la science doit être au service des hommes pas contre les hommes. nee na dañ koo jat ba. wuyu ma dama ne la la science doit être au service des hommes pas pas contre les hommes dama ne la euh, xar baax. ak mystique. dafa war a nekk luy jariñ mais warul dox luy roy luy lor mais imaginer bëgg ñu gëm la. nga rey mala mais loolu c'est violent ba pare ay nit toog la seetaan ak droit des animaux anamu suñu constitution dafay tere ko toroxal mala xanaa xamul loolu. déedéet man pour man tubaab yi rek ñooy def loolu. tubaab yi rek ñooy bañ. boo doo fa rey ginaar de. bitim léegi tubaab yi dañoo gën. ah foofu doo fa rey ginaar fii. te ñun ay jullit lañ. làmb ji gis nañ fi ku sëriñ bu ñëw dugg ci stade bi kuttu bopp ginaar bi tëmbal fa rek. mais c'est injuste. mais xam nga mën naa ne sax nga jël paak nga dawal ko quel que soit anniversaire moo tax nga rey ko wala da ngaa rey ko mais garaawul sang nga am nga droit boobu. Hmm. mais da ko xot bës ko loolu booy boo ko bësee nit sax mu dee ba pare di wax te lim ci jublu yëpp pour ñu gëm ko quoi mais mënul am beneen scène bu mu def ñun xoolal. bu dul bu dul rey xoolal coono yi ñu am si Sénégal am nga xar baax am nga baatin. Hmm. mais fekkal ku ñàkk nga fexe mu am. loolu moo amut fii. loolu mënul nekk ku amul fu mu dugg nga ñaanal ko ba mu wut ba mu am këru boppam amut fii. yow dootoo publicité sa bopp de. Mhm. kooku mooy wër di la publicité. amu fi. te man nag ñoo Sénégal laa gis Serigne bu toog. Mhm. di publicité boppam. soo amee xam Serigne Touba ban télé moo ko mos a wane. Mhm. ay jamonoom télé amul. benn nataal la am te ñu naan moom la wala du moom borom baraag bi te kan moo ko xamul. ñëpp ko xam une figure emblématique. Mhm. àddina yëpp ñoo ko xam. te ba muy dund tele amul rajo amul kon su ma gisee kii simmeeku taatu neen pour siiw kuy wax lu ñaaw pour siiw kuy wax kàddu yu ñagas pour siiw ku yàq deru nit pour siiw. Mhm. lu baax mooy publicité boppam sëriñ bu toog naan la mën a mën a mën goo gis du moom yow a yow a moo wóor xam-xam da koy def ci le bon sens mais Afrique Sénégal loolu moo ñu du dem ak ay ak fee amoon départ. Mhm. lu tey demut dañ koo kar lu tax koy tukki du tàggoo Sénégal la xew yeneen dëkk yi booy tukki da ngay tàggoo Sénégal eh boobu senegal la am. booy tukki doo tàggoo tàggool nga xam. takk jabar képp boo ko teelee yëgle doo boo moytuwul takk gi du am baa ñooy takk la nga yoom yooyu Sénégal la xew te yooyu dañ ko war a dind suñu xel dañoo war a bàyyi soxorante beeg ñaanante bi bàyyi hypocrisie bi Sénégal moo am booy tukki doo tàggoo pour pourquoi booy tukki doo tàggoo booy tukki di tàggoo doo dem mais booy dem ay Casamance ak yooyu garaawul pourtant ñu pourtant sax su nga dégg suba dama dem Diourbel. parce que foofu yaakaaruñ ni fa am dara moo tax kenn du la ne doo dem mais damay dem France wala damay Italie wala damay dem Espagne sama visa ngi nii laay dem. doo ko gis <laughs> da ngay fanaan am na sax benn gaan moom nee benn copain am benn euh, ay mbokk lañ nii rek ñoo fanaan ci benn lam muy dem ba Italie téléphone loo ko woo ne ko maa ngi <laughs> da ni <laughs> mbokk yi mbokk yi maa ngi di jaajëfal bu baax ndax xam naa ne euh, Kona bi bu ñu toogee fii ba ginnaaw suba li ñuy wax du du jeex te ginnaaw liggéeyu internet temps bi bu yàggee. temps nag maa laaj na ma laaj na ma dama leen doon xas. gaa yi nga leen gaa yi li ñuy bëgg a wax yëpp xam naa ne loolu lekkatul xas léegi. <laughs> kon comprendre nga li ma doon yaa ci bët yëpp ah, laa la wax lekkatul xas. ndax vraiment loolu yëpp dafa waral tey ma ma woo ko dalal ko. parce que saa su ne nga dégg nit wax ci loo xamante ni doo ci ànd ak moom parce que nag wax dëgg wute gis-gis moo waral marchandise bi di jar marché kii di jaay fii kii di jaay fee. vraiment moom it mu nekk nit ku baax nit ku disponible ndax tey fi mu jugee sori na loolu joxuma ko ñaari dërëm te ñëw na ngir intérêt Sénégal rawatina intérêt làmb ñu ngi koy ñaanaw combat bi nga xamante ni dugg na ci yàlla defal ko ci jàmm yàlla defal ko sutura ñëpp ñi koy seetaan rawatina ñi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi ñu xam ni doomu réewu Sénégal la li muy wax contrôle kenn mais bu sañoon Sénégal rek am ci jàmm bu sañoon mu nekk njariñ ci réew maa lay jaajëfal bu baax di kontaan ci teew bi nga xamante ni teew nga ko fii. merci Djily sama turandoo. man Cheikh Abdou Khadir Jeylaani lañ ma tuddee li lawliyaa borom ñaari bàmmee yi. kon nag fa tabaar fa kàll maa ngi ñaanal. réew mu Afrique yëpp. Mm-hmm. am jàmm. Mm-hmm. li nga wax rek. lu duuf ci nag li moo xajandoowul ci cin li mm-hmm. mais waroon nañu wax ci Mali waroon nañu wax ci lu bari mais daal li nga ko waxee rek noonu la demee euh, benn lay pàkk la soo bëggee nit ki da koy jege laaj ko li nga wax nii foo ko teg. ndax tubaab dafa ne la raison et la chose la mais partagée au monde. Hmm. waxtaan ak diisoo. Hmm. moom lañ gën a def ci àdduna bi te lépp lu mu defarul du ko yàq. kon lépp lu ñu yëkkati rek na yàlla rek tax ñuy wax. Hmm. te man yàlla daf ma dimbali loolu laa loolu laa gëm quoi te dëgguwuma nag. peut-être mais je tends vers la vérité. te ku ne sañ na ko. dëgguwuma mais je temps vers la perfection. matuma mais maa ngi tendre jëm ci lu baax. nit ku ne nag. loolu sa responsabilité la chaque jour soo xëyee di évoluer. am na solo maa ngi nuyu ñëpp asalaam mais ibbi naa site bu bees tuddee ko c'est la bonne TV. bëgg naa nag ngeen jàpp ci. ndax nee naa la benn loxo du tàccu. Mhm. te nit ñi sax ñoo ma ko defloo ne ma kon yow da nga war a am mbir jumtukaay booy. jàllale say message mm-hmm. parce que li ngay wax dafa am solo. Mm-hmm. kon nag du sama yëf. Mm-hmm. yëfu askan wi la. tax Sidi Lamine Niass da nga daan wax. nee na yéen ñi yor micro bi yéen ñi yor presse bi. da ngeen am benn patron muy le peuple sénégalais. mais nag moom it moo doon wax ni euh, euh, dañu war a am nekk la voix. des sans voix. Mm-hmm. mooy kàddu ñu amul kàddu. Mm-hmm. waaye moom it moo doon wax ni moom sii dina mu bëgg. Mm-hmm. ñun am nañ valeur Sénégal am nañ nit yu baax. mooy ñu fi jug ak ñu fi nekk nañuy valoriser ñooñu di yéen ñi yor média yi dama leen koy ñaax. dee leen génnee waxu ñooñu dee leen leen promouvoir. ku mel ni sëñ Ahmadou Rafaaxi dee leen ko promouvoir ku mel ni sëñ euh, euh, sëñ kii euh, Makhtar sekk bu mbooro xaw ndax yaa ngi koy déglu bu baax dee ko déglu mm-hmm. ñooñu lépp poésie bu tubaab yi def mm-hmm. tënk nañ ko ci mbir ci alxuraan tënk ko ci éthique tënk ko ci société Sénégal te duñu wax mukk lu ñaaw mm-hmm. si Lamine Niass moo daan wax un pays cent fois ni loi la demeure des hommes bien c'est à la prison na nga jàpp ne bu dee nit ku baax nga tu es en liberté provisoire man mii jàpp naa ne chaque jour je suis en liberté provisoire parce que loi yi ma tënk sax maîtriser wu ma ko yëpp li ma war a yóbbu kaso yëpp li ma ci maîtriser li ma ci maîtriser mu ngi mel ne nga dem géej ndox ñëpp jàpp nañu ni nañu maytu ñaan yàlla musal ñu mais ñun ñu ñëpp liberté provisoire lañ nekk. Hmm. mais dëkk boo xamante ni dëgg amu fa injustice moo fa am ak impunité kenn kuy wax dëgg rek jàppal ni sa sa boolu mbaxal wala sa boolu jagaa bi mun mun nga kaa dem lekk ji. Hmm. mais lépp rek na doon ci dëgg. Hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf am na solo mbokk yi ñu leen a jox digg daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew jërë ngeen jëf.